internet Dakar Buzz TV nuyu nañ leen bu baax a baax bëgg ànd ak yéen ni koy defee saa su ne émission seen cas bi nga xam ne def nañ ko euh, démb foofule ca Mbour tey nag am na suivi de cas euh, ndax ñu fàttali leen dafa am ab bu ñu woowoon ne rek ne euh, dafa am borom boutique bu koy proposé wàllum góor jigéen ci loolee mu am ci ay preuve yóbbu ko ci gendarmerie ba ci jamono ji waa ji nag daat nañ ko yóbbu ci kanamu procureur ba ngay xaar li nga xam ne moom mooy procès waaye ci biir waxtaan bi daf cee tuddu Adamo nee na nag photo ak vidéo yi nga xam ne am na ko woo na Adamo pour jox ko ko Adamo ne ko euh, moom wàllum góor jigéen loolu nag du ci wax comme ni ñu koy waxee rek benn pàkk du lay ngir moom it Adamo mu daal di andi ay leeral euh, moom la ñuy jokkool ci biir Dakarbuzz TV mu wax ñu wax jooju euh, naka la tëddee Adamo nuyu nañ la. maa ngi ziar góode baa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. maa ngi ziar bu baax waaye baa yaa ngi am bu baax. ñu ngi ci jàmm ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi lay seetaan. waaw maa waaw di ziar ñëpp di ziar ñi nga xamante si nii ñoom ñëpp ñooy seetaan ak ñi nga xamante si ñoom ñooy déglu ki nga xam ne moom mooy Ngoné di nga am contentement bu baax. d'accord merci alors Adamo vidéo bi sànq génn na waa ji la ci tudd nee na. photo uh-huh. ak vidéo yi nga xam ne am na ko muy ay preuve wàllum góor jigéen te loolee la jébbal. Uh-huh. gendarmerie nee na woo na la waaye yow da nga ko wax ne wàllum góor jigéen doo ci wax andi ci ay leeral. ok loolu laa gis nag damaa gis euh, ñu bëri di ma ko yónnee mu ne dafa maa contacter woo ma di ma wax ay waxu vidéo mhm. dèjà man a ah, bu la wanee sama photo yow ngoone nga ne sama photo nga gis man sama numéro ñi ko am xam nañ ne man photo Wally Seck rek laay def ndax man Wally Seck rek la man Wally Seck rek laay def du ma sama numéro yi foo dem Wally Seck moo ciy nekk mm-hmm. man mosoo gis man nga jot ma téléphone jot ma Macky Sall moo ko a yomb amul booy bu may woo téléphone wala nga may yónnee kaa may wax mm-hmm. booy bu ma ci yónnee message da ngay jooy ñii saraxu ñii dañuy bëgg a ma wuyu leen ba mm-hmm. naa la tegal ay vocal yoo xam ne na cent amul kenn ku ma woo bu fekkee moom woo ma appel wax ma affaire yooyu na teg appel bi pourquoi tegu ko di dégg man aw ci loolu na teg appel bi mu d'accord loolu daa yomb trop man preuve rek laay demee góode. Mhm. moo tax sama wax du bëri. waaw léegi kon loolu mu wax euh, teggi nga yooyu tuuma du du dëgg woowu la jokkowul ak yow benn yoon. waaw woowu ma contacté wu ma man boo ma bindee sax du ma la wuyu mhm. man du ma wax ak n'importe qui dama bëgg mu leer ci nopp Sénégalais yi mhm. leer ci yow bu fekkee am na contact bu ma woowee na teg audio bi wala mu bës appel bi di ñëpp di dégg mu xam ne man woow naa Adamo wax naa ak alors li la gën a metti ci moom ni nga ko waxee nee nga commentaire yi euh, dem nañu sax ba naan Adamo euh, góor jigéen la moo tax. bëgg waaw lu ne ñu koy bindal ci commentaire yi. loolu du yoon man wax ci wàllum góor jigéen lan nga leen di wax ñoom pour ñoom it ñu a xam. Ah? lan nga leen di wax ñu commentaire ne Adamo góor jigéen la moo tax wàllum góor jigéen bi bëgg cee wax. ah man ñuy commentaire jor man ñuy commentaire joruñu ma mhm. fii man fi man yàgg naa fee wax man ni jigéen li may wéeree li may waxee si jigéen yi mhm. noonu lay waxee ci xol yu góor yi ak góor jigéen yi yëpp fii ku fi nekkul si yoon ñu wax ak yéen yaa ngi dégg mhm. man man aw ma aw ñiy commentaire aw ma aw ma ñoom jot ndax ñii commentaire moom xam nga képp koo xam ne da ngaa siiw wala nga nekk ci kaw da nga bëri ay noonu wala ñoo xamante si nii bëgguñu la mhm. baatu góor jigéen ku siiw Sénégal rek dégg nga ko mhm. ku siiw Sénégal taxal na la ko ku man mënti doon loo siiw siiw siiw siiw na la wax góor jigéen nga wala ñu ne la lesbienne du jeex noon la àdduna bi mel Sénégal noonu lay doxe d'accord alors mais yow nit ki ak yow yaay kat nag looloo ci am solo d'accord alors Adama ah. occasion la pour euh, waxtaanaale ak yow wax la ci jamono ji gis nañu ni ngay yëngoo euh, ci xeex jikko yu bon yi ci li nga xam da nga koy xeex pour nit ñi baax comme ni nga ko faral di ko waxee ak di ko defee noonu ñu toll ci jamono joo xam ne tey ànd sa sàmm jikko yi ñu ngi xeex li nga xam ne moom mooy wàllum criminalisation góor jigéen fii ci Sénégal lan moo ciy sa xalaat waaw waa sàmm xeex jikko yi li ma leen di xalal mooy fu ñu xeexee wàllum góor jigéen war a nan fee xëy xëy lesbiennes yi parce que man lesbiennes tey rek am na ku ma bind di ma ñaan gel lesbiennes yoo xamante si ni waaw a gel jigéen moo lay da ñaan gel waaw mhm. may may ma gel ma histori naan ma ndax doo ma ko may xam nga jigéen bu ne xeex danoo war a maasu na affaire yi lesbiennes yi danoo bari Sénégal de dëgg la lesbiennes yi danoo war a régler lépp ñu kii ko ak ñiy sàmm jikko yi tamit ñu xool ñoom seen i jikko ndax tamit baax na ñu doog a sàmm jikko yi mhm. fii daal luñ fi xeex rek ñu ñu ngi ci mais dañoo ta nekk ci internet bi lu ñëw nga ne tararari boo gisee benn diw waxul rek gën a diw lu tax waxul ah mhm. lan moo tax waxul war naa wax ci lii mais ku nekk am nga droit wax ci lu la neex mhm. ndax na ngaa bëgg a ci lii waaw wala déet lii dama cee bëgg wax waaw wala déet kenn mënut a force nit ki mu wax ci dara par force wala mu def dara par force suñuy plateforme ñun ñoo ko moom Mhm. yaa ngi dégg mhm. ñeneen ñi ñoo moom seeni kàddu lu leen deex la di def mhm. waaw doonu la demee rek mais du leneen waaw d'accord kon euh, a yooyu kàddu nga amoon pour wax ko ñu ngi lay sant di la lan ngay tàggatoowee di kontaan bu baax yaw mi di la ziar di nuyu baax góodi waaw man maa ngi lu émission yi ngay def yow moom yàlla na yàlla defal jàmm parce que kàddu gi benn la Sénégal koo wax gars yi ñëpp ñëpp journaliste koo ci wax góode dafa baax borom baax la nit ku baax la amul benn problème nekk booy booy posé question question yu jaar yoon ngay posé mhm. loolu maa ngi ciy am di contact ma di remercier Dakar gi boos yëpp loolu laa amoon ci lu wax merci beaucoup jërëjëf mhm. euh, di sant bu baax également ñu doon seetaan émission seen cas suivi de cas woon comme ni ñu ko waxee tudd nañ ko ñu jox ko droit de réponse ginnaaw ba xale bu bi waxee na nag euh, woon na ko ngir jox ko photo ak vidéo dégg ngeen kàddu yi nga xam ne àddu moom moo ko waxal boppam euh, ci làmmiñu bu baax di leen gërëm beneen yoon ak beneen cas ci biir